Euh, li ñu fi indi tey nag man en réalité dañ maa invité dafa ñëw wuyu si invitation ay kuréelu béykat kuréelu béykat boobu mu ngi tudd fédération des producteurs maraîchers des Niayes te suñu mbokk Ibrahima Mbeng jiite ko nekk président bi ànd ak secteur général am Jéeri Gay ak ay béykat yu am solo ñoom ñëpp ci kuréelam ñu invité ñu pour won ñu li ñu liggéey loolu nag jëru ma di wax ne mbégte laa ci am pour ñëw wuyu si ndax ñu ngay seqal liggéey waroon na wax ne damay yëglu pour ñëw gis li ma jot a seq ak ci wàllu jàppalante néew la ko bari ci wàllu yokk seen xam-xam tuuti ci doole leen naka la jeexitale kooku njëkk laa wax ne kaay ma woon la li ma def loolu cawarte lañu ci am ñu nag li tax ñu gën sawar a ñëw mooy FPMN kuréel bu yàgg la ci wàllu mbéy rawatina mbéyum noor fii ci ñaay ci kuréel yi fi njëkk la bokk loolu mën nañ koo wax li tax ma wax loolu mooy moom rek laa gis ci kuréelu béykat ci wàllu horticulture ci ñaay nga xam ne siège ba mu nekk sax ak yenn pàkk ca yam yore di ca liggéey di ca béy sax nguur gi moo ko ko joxoon xam nga loolu kon yàgg na maanaam moo ko mettroon ci disposition am pour mu koy liggéey di ci jariñu gisuma ci beneen kuréel loolu dafa wane ne kuréel bu taarixu la kuréel gu yàgg la yàgg gi nag feeñ na ci solo yi expérience bi ak doxalin li ñu njëkk a jàng ci ñoom mooy transparence maanaam leeral ci ni ñuy yore mbiru béykat yi ñu nag lañ ca xam la ñuy wax mooy li ñu leen di jox pour ñu jox ko béykat gis nañ ni lu jëm ci wàllu engrais lu jëm ci wàllu jiw pomme lu jëm ci matériel agricole bu duggee seen loxo d' abord njëriñu kuréel gi lay nekk en tout cas ci li ñu gis tey mën nañ la wax tonne ñu leen jox ci engrais kan moo ko jël nañ ko séddale ndax dañuy def ki ko jël ñaata lañ ko jox mu signé def carte d'identité wax dëkk ba mu dëkk. loolu bu la neexee kon mën nga fay jóge dem vérifier ji loolu kon loolu nag dafa am solo ndax gouvernement buy def subvention dafa mu dem ci loxo béykat bi nga xam ne mooy béykat bu ndaw ki muy benn boo jëlee engrais noonu la nga jël jiw pomme de terre par exemple noonu la nga jël matériel agricole tracteurs yi noonu la ñu gis nag ne jeexital na ci mbéy mi bi ñu ñëwee fii lañ gis dañoo gis ni ñoom comme dañoo jàpp ne mbéy dañ koo war ci liggéey bu mënta doon dañ ci war ji jëm kanam fu ñu gisee lu bees lu mën a doon dimbal wala ministère ne lii lañ bëgg def pour béykat yi ñoom dañuy daal di jóg taxaw ci xam nga ni ministère de l' agriculture ci loxoy professeur Moussa Baldé dafa encouragé ci jamono yi li ñuy wax contractualisation maanaam béykat bi jaay mu jar lañ mbéyam balaa koo béy balaa ji mu jaay ñoom loolu la ñu def fii ak Sénégal ñun direction de l'horticulture nag loolu ñu ngi koy jàngale ci projet bu ñu bokk ak waa Japon bu ñuy wax JICA projet bu ñuy wax CHEP projet boobu li mu tekki mooy nan la ñuy fexe bu béykat bi moom boppam man boppam mu jaar ci mbéy moo nga xam ne moom moo koy décider boppam ci xam kañ lay bay ak lan lay bay waaye day fekk mu xam kan la koy jaay ak ñaata la ko koy jaay loolu projet boobu ñuy wax CHEP ñu ngi koy yaatal ci réew mi ànd ko ak waa ANCAR ak yeneen i kuréel gis nañu ñoom doxal nañ ko parce que signé nañ contrat fi may wax ak yow jaay nañ seen pomme de terre seen i jël nañ jiw bi ci moom jot nañ engrais ci ñun loolu yëpp teel naa ñëw jaay nañ seen mbéy avant ñu koy ji ndax fi mu nekk nii gisagu leen pomme de terre ci ci ay tool lañ ne waaye gisagu leen doom yi doom yi fii ak weer lay génn mais jar na ba pare buñ ko jëndee it dafa am chambre froide bu bu bu sedd bu ñu mën a denc pomme de terre bu def fukki junniy tonne fële ca jam ñaajo day jël loolu ñoom rek ñu ngi xaar juróomi junniy tonne wala boog ñeenti junni tonne ak juróomi téeméer entre quatre mille cinq cent et cinq ñu ngi koy xaar ñoom ñii mu jóge fa faa dem xam nga kon ñoom jarle nañ kon kon gis nañ seen bopp kon nguur gi sant na yàlla jóge na ci fukki junniy tonne ak juróom dem ci téeméeri junni tonne ak ñeent fukk daaw ren ñu ngi xaar téeméeri junniy tonne ak juróom fukki junniy tonne lu mu néew néew gis tool yi ni mu mel te ñu ngi sant si borom gunóor amu ci yàq amu ci dara amu ci yal na def mu yeggee ni ñu ko gisee bu loolu amee du am lu yées téeméeri junniy tonne ak juróom fukki junniy tonne te ñu ngi soxla juróom-ñeent fukki junniy tonne ci Sénégal at mi yëpp kon xam nga bu ñu amoon ko dence mun nañoo jaay sax bitim réew pomme de terre. kon dencukaay yi dinaa ci ñëwaat léegi farata la waaye nag dama jàpp ne privé ñoo ko war a def ñoo ci war a jiitu bokk ndax ki def loolu privé la da ko denc foofu dix mille tonnes boobu marché neex mu jaay ko kon xam nga liggéey la kon beneen sénégalais comme yow ak man waroon na mën a ñëw jël ay milliards def chambre froide jam ñaajo ñëw fii ci ñaay di jël production bi di ko fa def kon loolu lu jara euh, euh, tudd la. jërëjëf wax nga dëgg gel bi am na fi may wax nii fii ak semaine jëm fukki fan pomme bu ngeen xewloo Sénégal da ngeen jàpp ne fii la ñore parce que mbaan dem naa fo barke démb pare nañu camions yi ñu ngi waaj pour ñëw ci biir Sénégal fépp ci senegal te fii ak juróom-ñeenti weer ci kanam bu soobee yàlla. bu néewee bu néew laa wax tontu Sénégal la ñuy dundee kon xam nga loolu am na solo waaye dencukaay yooyu li tax ma ma ko doon tudd léegi ñu ngi gelé depuis le vingt cinq décembre deux mille vingt pour carotte ak pomme de terre non ak soble 31 décembre deux mille vingt ñu dakkal dikku légumes yooyu muy soble ci réew mi kon xam nga léegi li ci réew mi moo des kon léegi njaay mi taxaw na ñu bëgg nag ñu fexe ba ñu respecté li ñu juboo ci fan yi passé lan lañ juboo mooy boo jëlee kaw pomme de terre ndax mooy njëkk a génn dañoo juboo ci ni béykat yu mag yi muy Sénégindia parce que du moom rek am na yeneen ñaari béykat yu mag yu nekk fële côté Ross Béthio ak yooyu ñoom lañ ñoom ñu njëkk a ñorle na ñëw ci marché bi fii ba e côté 10 jëm 15 mars wala sax peut-être fin mars en dinañ ko topp ndax régulation bi dafa am suivi ñoom ñooñu am nañu ay dencukaay ay chambre froide mën nañ ko denc du yàqu te waa ñaay mënuñu am fu ñu amuñu fu ñu denc dañuy dañuy deq ci tool bi yóbbu ca dëkk ba yóbbu mars ñu ne bu boobaa bu diir boobu jotee fin mars waa ñaay dinañ ñëw ci marché bi ci pomme de ñu dakkal bàyyi leen ñoom ñu jaay bu ñu jeexalee fii ak ñett wala ñeenti ñoom ñooñu ñu ubbi seen chambre froide ñëw ci marché bi def li des ci at mi kon loolu lañ juboo ñu ngi ñaan nag béykat yëpp mu jaar ci seen kuréel yi euh, euh, Ibrahima yaa ngi may dégg kuréel yi nañ wax ak béykat yi ba ñu respecté loolu nga xam ne du am coow lu bari du am wax ndax loolu dañ ko waxtaanee ci ARM ba juboo ci kon bu ñu waxtaanee seen dara ba juboo ci nañu fexe kenn bañ koo wàcc fi may terminé nag mooy beesal bi FMN di beesal liggéeyinam gis ngeen ay solaire gis ngeen ay asperseur maanaam wuute bi fii ak feneen daanaka amul mu ngi dëppale daal seen mbéy ak jamono. de national de relance de l'horticulture mu ngi bokk ci PAP 2A nga xam ne président moo ko yëkkati pour ñetti at yi di ñëw côté mbéy mi professeur Moussa Baldé ministre de l'agriculture et du ci programme boobu bokk na ca nar a gën a dëppale. day mi ak jamono ci matériel yokk lu jëm ci wàllu engrais ak jiw pour subvention yokk lu jëm ci bërëmu dencukaay kon loolu nekk na loo nga xam ne lu ama am solo la waaye suñu yaakaar dal na ci programme boobu ndax li ñu gis nii nga xam ne déjà producteurs yi ñoo ko jëlal seen bopp décision def ko njort nañ ne jéego yi ci ñëw dina gën a am solo ba nga xam ne li ñuy wax souveraineté alimentaire maanaam njort ci bopp ci wàllu dund ci xeetu la jëm ak di ko jaay bitim réew di am di ci am ay koppar loolu dina mën a wéy kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di que j'ai été euh, invité c'est une tournée organisée par la fédération des producteurs maraîchers des Niayes dont le président monsieur Ibrahim Meng est ici présent alors pour moi c'est venir répondre à l'invitation de ces acteurs majeurs de la filière horticole dans notre pays et surtout dans la zone des Niayes. Cette fédération euh, regroupe, je pourrais appeler, des acteurs professionnels que l'État a l'habitude d'accompagner. Je dois d'ailleurs vous dire que leur collaboration ou leur partenariat avec le ministère de l'agriculture et de l'équipement rural date de très longtemps. Même leur siège aujourd'hui à Sangalkam, ainsi qu'une assiette foncière pour leurs expérimentations, leurs démonstrations, ces sites ont été mis à disposition par le ministère. Pour vous dire donc la nature du partenariat entre le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural et cette structure de producteurs. Donc pour la rencontre d'aujourd'hui, comme vous le savez, comme pour l'ensemble ou pour l'essentiel des producteurs maraîchers du Sénégal, le gouvernement du Sénégal les accompagne à travers des mesures de soutien, notamment à travers la subvention des semences de pommes de terre. Cette année, le gouvernement du Sénégal a mis un peu plus de 3 milliards 500 millions pour subventionner environ 12 000 tonnes de semences de pommes de terre. Et c'est subventionné à 50 euh, on parce que le producteur paye 350 francs le kilo et l'État lui paye pour lui francs. Parce que le kilo est à 650 francs. Donc, ça, c'est une mesure qui a euh, été faite depuis 2012. On est passé de 130 millions en 2012 à 6,5 milliards en 2018 euh, et cette année, on est à 3 milliards 500 millions. C'est pour vous dire l'importance du soutien de l'État et c'est ça qui permet à la culture de pommes de terre de se développer parce qu'on ne produit pas, produit pas, localement des semences. C'est des semences importées. Donc, n'était de cette subvention, il serait difficile de faire passer la production de, de, pommes de terre de 15 000 tonnes en 2012 à 140 000 tonnes l'année dernière. Et cette année, on n'attend pas moins de 150 000 tonnes. D'accord Deuxième mesure, c'est la subvention sur les engrais. En 2012, on était autour de 10 000 tonnes. Cette année, on est arrivé à 22 000 tonnes. C'est vrai que le besoin reste encore important, oui, mais reconnaissons-le, les efforts importants ont été euh, faits. Donc, bon an, mal an, entre 10 et 15 milliards de subventions entre les semences, l'engrais le matériel agricole. Donc, voilà l'accompagnement que l'État a fait à, aux commandes des horticulteurs sénégalais. Mais pourquoi je le magnifie ici Parce que l'AFPM nous a habitués à une gestion particulièrement transparente des moyens que l'État met à la disposition pour les producteurs. Aujourd'hui, il peut vous dire, sur les, je ne sais plus combien de tonnes ils ont reçu cette année d'engrais, il peut vous dire, au kilo près, c'est allé à qui Et ça, c'est important. Il faut vous dire, le kilo de pommes de terre, jusqu'aux centaines de tonnes qu'ils ont reçues, c'est allé à qui comme bénéficiaire Ça, c'est important. Aujourd'hui, ils peuvent vous dire à combien ils vont acheter la pomme de terre, qui va l'acheter. Tout ça, c'est réglé. Donc, on a tenu à répondre à l'invitation parce que c'est des acteurs majeurs de la, la filière. Mais c'est parce qu'il y a de l'innovation avec cette organisation. la, la, la, la, transparence dans la gestion de ces subventions. Deuxièmement, les innovations dans la contractualisation. <coughs> Excusez-moi. La contractualisation, c'est quelque chose que nous sommes en train de beaucoup encourager. Parce que c'est la solution in pour une agriculture compétitive et rentable pour les producteurs. Aujourd'hui, ils ont signé une, un contrat avec le groupe Sénéguinia qui a fourni les semences, il va vous expliquer, qui a fourni de l'engrais, qui a acheté, qui a préfinancé certains aspects de la campagne, le carburant et autres, et qui s'est accordé avec sur le prix de vente. Si je ne me trompe, je ne me trompe c'est 200, c'est 200 Borchon. Et Sénéguindia va acheter cette récolte et va la stocker à Djamnyadjo où elle vient de réaliser une chambre froide ça veut dire quoi ça veut dire le producteur membre de FPMN trouve son compte parce qu'il a des intrants à temps y compris avec l'accompagnement des États il a un marché conclu à l'avance et donc il peut décider librement d'aller en campagne avec des superficies plus ou moins important et voilà ce qu'on appelle l'autodétermination du producteur pour la production, c'est important. Et ce qu'on appelle aussi l'asymétrie d'information qui fait que le producteur, souvent, il ne pas qu'est-ce qu'il doit produire, quand. Ça, règle à travers de l'approche diffusée par le, la direction de l'horticulture qu'on appelle le CHEP. cest l'autonomisation des petits exploitants horticoles par l'agriculture orientée vers le marché. Donc, c'est ça qu'on a appliqué ici et qui a permis d'arriver à ça. On, a voulu montrer ça en exemple. on était tout content à invitation. Vous avez également les innovations en termes d'outils. L'utilisation du solaire, l'utilisation de la micro-irrigation euh, par aspersion, qui permettent aujourd'hui de moderniser les exploitations horticoles dans les Niayes. Donc, c'est annonciateur et, la mise en œuvre du programme national de recherche, non, de relance de l'horticulture dans le cadre du volet agricole du pape 2A. Vous avez suivi, ce programme a été validé. Et le ministre de l'Agriculture, le professeur Moussa a bien voulu mettre en avant et en priorité l'horticulture avec ce programme pour les trois prochaines années qui vise à régler certaines questions majeures telles que les infrastructures de conservation dans la zone des Niayes pour qu'on puisse couvrir nos besoins 12 mois sur 12 puisque nous produisons, nous produisons quantitativement de quoi couvrir il a mis l'accent sur ça. la modernisation des exploitants. Que tout le monde fasse comme les membres de la FPM. Qu'on ait des planteuses pour la pomme de terre, qu'on arrête de sectionner la pomme de terre pour la planter, qu'on des équipements pour le semi-direct de l'oignon, de la carotte, pour le respect du calendrier culturel et l'optimisation des rendements. Et amélioration aussi de la qualité du produit. Donc, ce programme permettra de le a augure des lendemains pour l'horticulture dans les Niayes. Donc voilà pourquoi on a, on a été euh, content d'être là et nous les encourageons à aller dans ce sens. Naturellement, je pas besoin de vous dire que l'État va continuer à les accompagner. D'ailleurs, pour terminer par votre question, <coughs> aujourd'hui, excusez la commercialisation va démarrer bientôt. On a gelé les importations de carottes et de pommes de terre depuis le 25 décembre 2020. Pour la pomme de terre, depuis le 35, excusez-moi, depuis le 30, 31, autant pour moi, 31 décembre 2020, on a gelé. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'importation de légumes que sont l'oignon, la carotte et la pomme de terre, à date. Et la mise en marché donc à démarré. Comme nous parlons aujourd'hui pommes de terre, on s'est accordé pour que Sénéguindia, qui aujourd'hui, cette année, a produit 75 000 tonnes, tenez-vous bien, dont 9 000 tonnes de semences, et le reste en terre de consommation, mais qui a des chambres froides pour 50 000 tonnes, qu'il commercialise 10 000 tonnes entre maintenant et le début du mois de mars. Et après qu'il lâche le marché pour les petits producteurs des Voilà l'arrangement qui a été trouvé pour la pomme de terre. Et pour eux, ça ne concerne même pas parce qu'ils ont déjà vendu. Mais pour les autres, c'est pour vous dire qu'en perspective, on ne devrait pas avoir de difficultés pour la commercialisation. Donc voilà un peu quelques éléments que je voudrais dire en vous remerciant.